asalaamaaleykum adduna asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum soppe xarit am di jàmm hey guys am na ku am beneen Snapchat boo xamante ni ah bokkul ak Snap bu Wally Seck bon nuróon nañ nag mais bokkul sa jamono tal moo posé bi mooy Snap bu bi mu ci portable Wally moom lay snapé ah ku lépp ku leen woo di leen ay envoyé photo patiti patata loolu c'est des faux problèmes ça n'existe pas ok alors yéen tamit soyez intelligent parce que Wally am na beneen laaj ay photo wala whatever ah vous en prie yow nag mi nga xamante ni yaa ngi koy def jàppal ni foo mun ci nekk dinañ la xam te buñ la xamee yoon dina dal sa kaw Wally Ballago bëgg ma def noonu weer wi dee sàkket